Thank you. الذي بالكهف والنون ما شاء يفعل بل ومجنون رمنا شرور الذي بالكهف والنون ما شاء يفعل بل ومجنون رمنا Assalamualaikum الذي internet Assalamualaikum mbokki Senegal. ñu ngi nuyu képp ku ni seetaan ci sen page officielle bu Soxna Aïda Saliou Thioune officielle ñu ngi nuyu ñepp di ci jittal suñu sang suñu sëriñ mom Soxna Aïda Saliou Thioune di ko ñaanal mu yag fu lool ta ànd gëwër li ngeen gis nak mo nekk xaruk tabaski yi nga xamante talibey Soxna ay dessal yu indil ko ngir siaré ko ngir màndargeel seen bëgg ak seen ciofel ci tabaski gi liggéey baangi nonu ngeen seen xari rafet lol taru jol ca kaw mom ngeen gis nonu soxna de Saliou ciun di doga a yegg si ci kërëm gi di kër soxna Bambi mu tambali li nga xamantani ni seddelé xari ngir kat mbollem xar bu ko talibem yi indil da koy jëlaat diko seddelé mbollem kilifa gu nek ci bir rew mi mo xam kilifa diine mo xam kilifa aada ak kep ku ko yello bayiwul daara alxuraan bayiwul tamit hôpitaux yi bayiwul prison yi mom ngeen gis ni mu tok bu rafet bi taaru lol di se li nga xamanteni moy mooy bi yeena ngi seen nonu gaay yi tambali di yeb ci camion yi taw yeena ngi seen nonu yeena ngi seen gaay ñu nekk ci liggéey bi di yeb xar yi ngir kat xar bu nekk bala nu ko yeb dañ koy indi ba moom soxna yi desaali cuun mu ni bii baax na nan ko yeb mu doog dem yéen ngi gis noonu ci image yi waaw waaw gaa yaa ngi noonu tàmbalee yéen gis seen camion yi ngir kat camion yi camion taxaw nañ ngir kat moom soxna yi Saliou Thioune nee na benn xarkat du fi des amul dara dara loh xamanteni dina ko teye da koy jël jox ko ñiko yello mom ngeen gis nonu ñukoy yeb xari nak yi nag barab bu nek Sénégal xari dina fa yegg ndax lepp da ko maté mu tambali séddale yi di yobbu ci daara alxuraan yi di yobbu ci hôpitaux yi di yobbu ci prison yi noné la koy doxalé mu bu rafet bi diko seddelel bopam diko yabal bopam ñong koy ñaanal mu yagg fi lol ta ànd ak wér mo àndee koog ñaari buntam yu teddi soxna botor sali Thioune ak soxna Adja sali Thioune ñu yagg fi lol ta ànd ak wér kon nak image yaangi nonu dañ leni baye rek ngeen sétane ko jërëjëfati Serigne Béthio Serigne Béthio amul dendando ku bañ mu ne leng booya bo dal di tëri faw daal ma way la ku am way nga sëñ Béthio lee baay gën a neex lee te gën a gaaw lee soxna Aïda Saliou ku bañ mu ne leen boo yaboo daal di jëri li nu sëriñ Béthio wax gis nañ ko na xunu moom li nu sëriñ Béthio wax gis nañ ko na xunu moom lees nañ jot am nañ yaqiin ni kii day dem soxna Aïda Saliou ku bañ mu ne leen boo yaboo daal di jëri nu dami aka jombe sëñ be jooñu ko baaxe na ay dami aka jombe sëñ be jooñu ko baaxe na ay aka jombe